asalaamaaleykum gars yi asalaamaaleykum téléspectateur ñu suivre Zambro TV comme ni ñu koy defee gars yi ah di leen toppal champion yi ndaanaan yi tey nag dañoo déplacé wu ñëw bu Joal ah seet ci champion bu mag koo xam ne kenn dootu ko présenté ci làmb ah tey nag ku ñu dalal yaakaar naa ne gars yi gis gën nañ koo gis ci làmb yi looloo tax te ñu déplacé wu ah seet si ko fas yéene waxtaan ak moom mais laataa loolu bu leen di fàtte di abonné wu di abonné wu di partag mais gars yi di leen yëgal waa cent pour cent Seyni Aïssa Ndiaye am nañ làmb le premier ak le 2 décembre fële si Djilor ci poids léger ñu tëgal mbër yi ah, nag ak xaalis ci poids aussi ñu tëgal mbër yi ñaari nag ak écran plat ak xaalis aussi waaye gars bu leen fàtte aussi suñu làmb euh, làmb waa Joofé production muy suñu grand Abdou Waxal moo am làmb ju rëy le 10 décembre fële ci arène Adrien Senghor ah, mu tëgal mbër yi million de francs CFA. animation su lay jaan lay doon ak euh, Ndeye faatu maa ngi bëggee ñëpp di bëggee sama caméraman Samba mais xam naa nag dañuy dalal suñu gan gi jox gi mu nuyoo euh, téléspectateurs yi ñu koy suivre à travers ceeb euh, nuyu nan la. waaw ñu ngi lay ngi maa ngi bëggee ñëpp waaw naa gën naa si làmb yi moom mooy loolu mais c'est de retour quoi waaw yaa ma gën a xam. ceeb gëj nga ci làmb làmb ji mais ceeb est euh, de retour ceeb avant ñuy ñëw ci euh, li waral sa géeju làmb ji mais ceeb dañuy ñëw ci saison passée bi waaw saison passée bi gis nañ ñu mu demee waaw est-ce que ceeb mën na def benn résumé rek ci saison passée bi. bon waaw saison passée moom waaw neex na neexul waaw ndax mm, dernier fin saison bi laa laa xaw a waa jël sax mooy loolu waaw. mais lu si am daal ñu ngi ko doon sant ak yàlla bu baax a baax ñu ngi ñaan tamit maanaam saison bi dàq bu ju fi ju jot a jàll yëpp waaw. Ah, ah, saison passée bi ceeb neex na neexul ñu dégg na ceeb lu mu dee dee am na lu ëpp 15 bopp. ah dégg naa ah, daaw daal sant yàlla. waaw bu ko ëppul sax. Mm, waaw. ah loolu saison bu ah ah tane na daa tane rek. ah, ah bilaay daa xam ñoo nga bu ñu sañoon maanaam benn bët la ñu ëpp drapeau. waaw ndax gaa yi ñoo sonn si ñun trop ñoom ñoom Baye Fallou. ñoom Pape Malick ñoom baabu Sarr. surtout sama yaay gars yi ñoo sonn si man ak ñoom góor Gora Wade Pabadou dañoo sonn si man trop. yàlla xam na loolu moo tax maanaam lu ñuy def la dañ koy xeeb. waaw. yëpp saison daaw bi gis nañ ñu mu demee yaakaar naa ne euh, poids léger nga ëppoon li ngay bëre te yaakaar naa ci ci poids léger ñu bëgg daan nga leen saison passée. waaw daaw daan naa presque saison ce qui maanaam favori ñu tax ñu naan favori yëpp. waaw parce que ay ñoom euh, soosoox. Mhm. waaw daan daanaa leen daaw mbam. Mhm. moom laa daan quart de finale. Mhm. Ah. ci poids léger aussi daan na ganja ñoom ganja loolu daan comme da comme da gars yi arbitre joxuñu ko kii gars yi. tant que dajiwaatuma ma toog si gaawam. mooy loolu de waxoo ren nag am na problème. Ah. gars yi balbal nii rep yàlla xam ne nii am nañ problème. Mm. waaw lu métti laa tegal nii. ceeb ñëw ci sa waay lu métti. Mm. Ah. <laughs> mais ba léegi ci ci poids léger yi daaw. parce que avant ñu ñëw si poids léger dañuy laaj ci benn point parce que amateur yu bëri wala say fan club yu bëri nañ leen ceeb dafa gaaw a may ndigg wax loolu wala wala ceeb bu kii may la wet bi loolu loo loo loo loo loo siy wax ñi lay bëggee ceeb. bon gars yi xam nga gars yi moom seen lu ne seen xel rek la ñuy wax mais ceeb newul maanaam man maay may man maay nit may nit ndomb man damay bëre ba nit fekk ma foofu waaw mais newul man maay man maay bëre rek wala tëb tëb rek naan damay may ndomb waaw. mais ba léegi ci ci may ndomb gars yi nee na berek bi. loo mën la wala galaaj la parce que gis nañu ay plus de cinq mbër yoo xam ne. saa bu ñu téye sa ndig mooy loolu. wax dëgg fa yàlla kii moo tax ma mun ko moom. Hmm. Baye Fallou bii. ndax dama doon ñoo nekk entraînement moom moo ko jàngal. Hmm. damay def di échoué dama ko doon def làmb sax di daanu. Hmm. mais maanaam am am fit moo tax may def léegi sama muy muy kii. muy résultat waaw mais léegi moom amatul bañ ay kay am na <laughs> day daa parce que li yëpp amul. Ah, parce que njëkk naa ko dóor ba euh, maag kii monument njànd. waaw naa ko ndangaan boobu daanuwul. waaw force kese moom ma fa génnewaat. doo <laughs> doo ko laga ndaw ma juumul <laughs> doo ko booy boobu dëgg lion de baagi xaw ma waaw laga laga moom maa ngi koy maa ngi koy nuyoo passage tamit comme sama grand bu baax la mm-hmm. waaw ndax man moom même bu du ñuy bëre si taxu dama koy wax moom mm-hmm. avant avant maa mm-hmm. yàlla xam ne moom ko see nekkoo sama mbër damay toog fii ku lu gars ma ne man kii mooy sama mbër mu laga mais xam nga maanaam garab si si kii lay fekk waaw ki kaw lay fekkante waaw mais sama grand bu cool la maa ngi ko nuyoo passage waaw ah. kon instant yi daal làmb xëy jël seen diggante non kon nag gars na fonkoo maye. <laughs> zam. Euh, xam nga maanaam loo xam ne moom moom mooy suñu métier moom moom la ñuy yaakaar pour teral suñuy waajur. man moom après làmb moom mun mënuñ koo dund mais mun nañoo ànd. affaire sportive la rek. mais moom comme maanaam ñoo xam ne bokk écurie. mais moom déggal bëri xaju suñu diggante. ñu bokkul ak moom ceeb day bëri. non man moom damay bëri de. waaw moom saa waay fonk ma ko ñëw ne ko ñëpp xamee. Mm. mais moom newul samay affaire mm. waaw. mais am na ko ma ne li ma gën a neex ci ceeb mooy du xeeb dagaabu day raafle lépp. non ñun du ñu xeeb. Mm-hmm. ndax ñun moom mooy suñu métier wax na comme nu ma la koy amal rek moom mooy suñu métier. Mm-hmm. waruñoo xeeb dara saako ceeb sax ñu bëre. Mm-hmm. waaw. Ah, des nag jéem a bàyyi ñoom Fallou sax ñu fogaatu. ah Fallou moom ma yónnee yaa xam ma rek. waaw comme comme ni moom instant ancien gulwaar waaw noonu la demee. mais ba léegi ñu nekk saison saison daaw bi saison daaw bi gis nañu ceeb def nga ay résultats. mais saison saison daaw bi ceeb noo ko waajee parce que gis nañ début saison bi affaire yi dafa dëgëroon trop ci yow lu lu ko waraloon entraînement yi ñoo dese woon wala jàppale bi wala côté mystique bi wala mu demee noonu. non daaw entraînement parce que maa yow ñu ngi doon fekkante Dakar daaw da waaw daaw Dakar laa nekkoon nekk fa un mois presque moo la mais xam nga gàllankoor ni maanaam. xam nga rek joal bi affaire dafa xaw a dafa xaw a métti trop si maanaam mbër waaw gars yi ñu ñu la war a jàppale lu ñu la jàppale ñu jàppale ñoo xam ne dëkkuñu bi sax moo la gën a ñu jàppale ñun ñii yàlla xam na daaw daaw démission bi dafa métti man torop torop sama sa dama dama doon nekk si làmb sax yàkkamtee daan wala saaka yàkkamtee làmb bi jeex dama réeroon dama réeroon carrément kon boo nekkee ci làmb da ngay absenté damay absenté trop bu mu dinaa nekk wala wàcc nii ba mu am confiance mais ma xasee ma duggoon si làmb nii damay yàkkamte daan wala saaka làmb bi jeex yàlla xam na loolu parce que daaw ma juumul seetaan naa la benn làmb fii nii Joal yaakaar naa ne làmb jooju war na bokk ci làmb yi la yi la gën a métti mooy bi la njaag seen di daan làmb te làmb jooju favori yëpp ñoo fa nekkoon ñu ne ñan ñoo des ci làmb ñoom ceeb ñoo fa des ah ñoom boros gaay yëpp mais nga ñëw bu ci xaw ma huitième de finale quart de ngeen bëre bëre bu métti yaat njaag seen mu war na la ndomb sax nga génn si mais à la fin yaakaar naa mu la mujjee daal. làmb yi ma daanu daaw yëpp boobu boo bokk na si mos yi ma gën a métti métti. Mhm. ndax maanaam fekk fekk la sa digg sa digg koñ sa digg koñu papa. Mhm. daal loolu mooy loolu. Mhm. da làmb boobu dafa métti woon si man yàlla xam ne bu moom buñ bu ñu desee mhm. man fanaanuma si lal mhm. dama si guddi dama loué oto quarante mille génn dem ba ginnaawu Kaolack sa romb ko mhm. billaahi nekk sama bopp ma ñëwee nelaw ma si lal ba noonu booy may àndal làmb maa ngi ko nuyu tamit au passage laay noonu la sonnee si man maa moom bu dañoo jógee foofu ñëw euh, moom ëllëg mu aw nit ñi mais dafa maarut dafa dafa gëlëm aw beneen yoon dem dem fu sori doog a taxaw laajte moom fu mu nekk nii si la tourné si waat laa moo dafa méttoon trop Uh-huh. gars yi dañ soo doon mystiquement wala nu mu demee noonu. te te pourtant ceeb à domicile la nekk affaire yi waroon na gën a yomb ci moom. xam nga maanaam euh, fekk si mbër moo gën a metti mm-hmm. parce que ku tëb danaan fii mbër yi favori fii mm-hmm. de bu bu njool bu ñëwul ceeb dina ñëw loolu par force la mm-hmm. waaw gars yi ci ñun la ñuy gën a jógal. Uh-huh. te yéen a desoon si drapeau. waaw moom njool sa bëriwul. moom man man maa tax bëriwul. waaw. waaw uh-huh. mais ba léegi sànq ceeb nee nga saison bi gaa nañ la xaar waaw. mais ceeb gis nañ saison bii nii état de forme boo xam ne wax wax fa yàlla gars yi sax nu ñuy est-ce que ceeb du poids ren. ren moom gëm naa ne poids lourd bi mooy ëpp. waaw na ma gars xaar nag. waaw xam naa moom poids ëpp. ah incha allah. foo hivernale ceeb saison bi. saison bi nekk fii rek Joal fii rek waaw comme dañu ne maanaam. Joal fi munoo fi entraîné daa mais daa fekk munoo bu yow bëgg a normal. ren moom dama ko jël au sérieux waaw. mais ba léegi ceeb avant ñuy ñëw ci li gën a tax ñu déplacé wu si la tey ñu defagum benn pause ci gars yi ci poids léger yi say say say say say adversaire sàng nee na gànja euh, na la ngeen tànk daanoo ko bu toog ci kaw mooy loolu yaa moom benn yoon boobu kenn ngeen tase wala. gànja daan bëri nañ deux fois benn mu génne ma palmarin par point. Mm-hmm. deuxième bi lañ dajee Djilor waaw Djilor. Simal Simal Simal au moins waaw arbitre def lu leen neex. Mm. Ah. mais boobu lu tax defoo woon ko. bon xam nga maanaam El Hadj rek xam nga El bi man sama grand bu baax la moom moom wax dëgg fa yàlla fu ma dem na ma koy tàgg. Mm-hmm. moom yàlla ak moom ma mel nu ma mel nii. Mm-hmm. Ah, xam nga maanaam ma yombul tey ma yëkkati ko moom ni mu ma xee defal nii rek def ma ko maanaam ça di dire moom déggaluma ko. Mm-hmm. moo tax dafa dafa wax rek man ma noppi. waaw ma ne ko amul problème. mais bi nga seetaanaatee vidéo bi. bon ñëpp ñëpp ñëpp xam nañu man maa daan moom si boppam sax moom xam na ne maa daan. Mm-hmm. waaw noonu la demee arbitre kon arbitre ñoo def leen neex rek. Mm-hmm. Mm-hmm. mais yaakaar naa ci làmb jooju aussi cëpp ci nga daan boros. <laughs> làmb waaw boros. boros champion bi maa ngi koy waaw làmb boobu laa ko daan. ah. waaw ah, ci état <laughs> wax baaxul. <laughs> non wax baaxul sam moom ci état na doole bii poids léger yi may gis nii kenn mënu kenn mënu ma si ëpp doole. Mm. kenn daaku ma si bëri. Mm. yàlla xam na loolu yàlla rek ma tiim nag. Mm. gars yi moom am am nañ repère te am nañ confiance ci ceeb da nga da nga absenté woon ñëwaat nga. ñoo déggoo noonu seen retour ceeb gars yi instant nañ gis lu garaaw. yàlla xam na loolu. noonu la demee. Ndiakhate sama tamit bi ngeen bëree Joal fii kese ngeen bëree wala. non dañoo dañoo bëree Joal mu daan ma. Mm-hmm. seen bis topp ñu dajee mooy làmb. ndayaan bi may jël moom laa dajal premier tour daan ko waaw moom laa dajal premier tour daan ko man mbëru poids lourd mbëru poids ma daan wala poids lourd am naa gëm a damay fayu hmm. force la parce que ba ay duur saane lu kenn xamul na de ku ma daan dama koy daan hmm. yàlla xam na loolu hmm. ah mais tamit mbaa daw non ay mbir la woon rek mm. mais ceeb mu ngi fii mm. waaw noonu la demee. Mm. waaw mais ba léegi ci poids léger yi kii kii daan na la nu ngi koy wax tey Pierre Maye. Pierre Maye waaw lu bëri de. dañuy bëfatu Zal Ndiaye fu may jàngee mbabat laa daane ba ñu yeggee tànk noonu. parce que làmb mbuur bi ma ko daan. moom mu ngi may doog a daan nii làmb mbuur fi mu la may doog a daan waaw. léegi ku la daanoon final mbuur mbuur xaw ma Ndayane. Ah, pa Moussa non non Ndayane man maa ko jëloon mbuur lañ ma daan final. Ah, Paa Moussa Bañ moo daanu final. Mhm. Paa Moussa ñaata ñaata ngeen. maam moom 3-2 moom moom 3 maam ko hmm. xam nga ne ceeb léger du ñu yomb ci yow. Hmm. te loo ci xamul ñëpp am doole saison ren bi. yoon la. Hmm. parce que maanaam ku nekk maanaam du bugg morom du bugg moromam daan ko wala soit du bugg morom ëpp ko doole soit ko mooy loolu. xam nga gars yi moom chaque fois ñu nekk seen ginnaaw rek la ñuy mais ba léegi bu ñu jógee foofu ceeb euh, mais ñuy dañuy ñëw si monument Ndianda. gars yi nee na da nga sonal monument trop trop ci. <laughs> monument monument <laughs> waaw làmb la rek xam nga maanaam làmb moom dafa tëral yi maanaam bul di mun na tourner aussi. Mm-hmm. pour ma daanoo day doon problème mm-hmm. mais li a jaaxal gars yi mooy monument da lay dem bu la sax mais à la fin mooy loolu. am doole rek. Mm. <laughs> kon amul secret. Mm-hmm. avec lépp doole la. man waaw man mbëru mbëru mu bëgg naan moom. na fexe doole dëggantaan. yàlla xam loolu. mais ceeb nag am na ku may yóbbante ne ceeb boo jotaatee booy da leen di def ndànk. non man du ma yërëm benn booy. <laughs> yàlla xam ne du ma yërëm booy. sam mm. comme nu ma la waxee man dañ ma yónni yaakamti ma. Mm. fii maanaam boo nekkee fii di nooy nooyul boo dañ lay yab rek. Mm. mais comme booy boo leen tegal lu métti nii. dañ lay bàyyi xel. waaw moo tax làmb moom saa yi aw aw ma si papa aw ma si doom. waaw ma nekkee si làmb moom sama papa su du wax sama ma dégg ko. waaw. képp waaw. An apou edan yon si diakal kon nou alay yon nyom mhm. mhm. mhm. bon, <laughs> euh, njol, nyon plasman man se, yon nyoma diakal, se lamba. Mwen bude njenen yon mwen lor. Mwen, rende diak, diak. Mwen bele ki te, mwen yon tukifo yon nyon ti komplicite bi, manan mwen yon mbeke jow alay, an nou deni dounen kon mwen ek nyon binjol, nyon nyon, bousa nan elan jan yon komplicite bi. ceeb est-ce que euh, am ngeen link boobu. waaw man moom gars yi moom samay garant la ñoom ñoo ma njëkk bëri foofu. Mhm. comme ne man 2019 sa laa commencé bëri normal la la laa commencé bëri sa laay wax. Mhm. waaw maag bay booy bi ñoo commencé bëri même laa commencé. non non la 2019 laa commencé ba corona bi ñëw mooy loolu. Mhm. waaw mais comme gars yi moom samay garant lañ déggal naa leen tellement que mooy loolu. Ah. 2019 nga dugg te yaakaar naa bi si duggee bu léegi tamit yaa ngi ciy gis résultat. waaw maa ngi sant yàlla bu baax a baax moom. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. nga man mais ban côté bi man bu réew ma raw gaadu moom. tànk laa ñëw rek waaw force mooy loolu. Uh-huh. ak ak mbapat yi waaw ak mbapat yi ak mbapat yi. mais ñu bëgg euh, damay dégg ñu naan euh, ceeb euh, kii nu ñu koy waxatee pool yi sa nijaay la ceeb est-ce loolu tamit mu dëgg la est-ce que mën nga ay leeral ci côté boobu. waaw Paule yi sama ak kan la. waaw ah, que moom ku moom ku ku jur moom papam mm-hmm. ak sama yaay ñoom ñoo bokk seen papa yi ñoo bokk. Mm-hmm. sama papa sama nijaay ak kan la waaw. Mm-hmm. Ah. di ancien am na fu <laughs> <laughs> maa ngi maa ngi bëggee ancien gloire yëpp ñoom Dimle waaw ñoom Paule yi. ñoom ñoom Aro na gaa yëpp daal maa ngi leen bëggee. Ah. jàpp. waaw waaw ñu ngi si jàpp waaw. ñu ñëw ci saison ren bi yaakaar na bu ma juumul euh, Fadial nga tijjee. Mm. Fadial nga tijjee jël ko. waaw Fadial laa ubbee jël ko. Mm-hmm. après lamb ma yem. Fimela. Mm-hmm. Pierre Marie daanu foofu quart de waaw découragé. ah daaw daaw daaw la gënoon métti ñu gérer ko. nga daaw la gënoon xam nga maanaam yow gis nga daaw la gënoon métti tellement que. Mhm. ñu toog gérer ko. Mhm. dara taxul ñu kii mais da daaw la gën a daaw ren ñaari làmb kese laa bëri. waaw kon kay mënul métti wala saaka maanaam damay découragé naa damay mooy loolu. mais est-ce que nekkul état de bi nga andi. Mhm. ak ni nga waajalee làmb ji. parce que ñëpp ñu la gis ne la leen ceeb wax dëgg fa yàlla ceeb bi ngeen décidé na. waa yaakaar naa ne ceeb li nga doon gis yëpp mooy nga jël ko. waaw làmb moom maanaam boo gisee maanaam nu ma duggee benn rek xam nga ne maanaam ceeb bu ren ak ceeb bu daaw ak ceeb yu paase. Mm. waaw ça fait